jërëjëf Fouly ni nga ko waxee ku santut nit moom doo sant yàlla ndax suñu boroom xéewal yépp jaam ñi moo ko moom waaye du wàcc di ko séddaleel boppam da koy jaarale ci nit ñi ci loolu nag la santaale Basiiru ndax mënoon ngaa ñëw yow rek mu jox la waaye bi ñu ñëwee daf ne yéen ñëpp dama leen di may terrain jox la jox Lamine te damay wax ne aw askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp bu ko yemale woon ci yow rek mu doy te fi leen may nag fa la ñëpp bëgg. te mayewul foo terrain loolu it na ko nit ñi xam kon loolu nga ñu defal taraanga jooju ñun tam ñu ngi la ciy sant bu baax a baax ci sama kàddu Lamine ak yi yépp ñu ngi lay sant ci loolu Ketchup lan ngay wax ci li nga xam ne moom la wulli wax. waaw ginnaaw bañ di sant euh, monde entier di sant kilifa diine yi di sant kilifa aada yi di sant. Euh, waa kër Cheikh na Cheikh Sadou. Mm-hmm. di sant waa kër Serigne Touba Xaadim Rasul. Ñaseen mm-hmm. Laayeen ni ah, ah mm-hmm. bépp xeet rek bu ne ci réew mi rek maa ngi koy sant. di leen gërëm di sant nag sénégalais yi bu baax nax lépp lu ñu doon tey rek ginnaaw yàlla ñoom la. tey suñ ñu doolelul woon di ñu seetaan wala di ñu bàyyi xel. amaana duñ jaar dara ci réew. dañuy mujj sonn rek toog. waaye ñu ngi sant ñëpp. Mm-hmm. leen sant yi ñu fi teew tey. Mm-hmm. di sant wuli bu baax di ko gërëm. Mm-hmm. sama xarit bi di sant Basiru Ka mii nga xam ni tey. amaana du ma man nit ko xeebu kii mu jox ma benn personnalité boo xam ni lenn rek a tax mu jox ma ko mooy seen tubaab bi ñu bokk. wu léegi ñëw léegi naan bakkan yi jox na ko <laughs> moom xam na ni man benn bakkan laa yor te Serigne Touba laa ko jox moom xam na loolu. waaye nag sama xol laa ko def. moom ni mu moom ni mu li ñu boole mooy Serigne Touba. kon dañuy jël suñuy bakkan ñun ñëpp muy bosam ak sama bos jël ko jox ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ni moo ñu boole. Mhm. waaw sama xarit la nag sama nit la nekk kilifa ci réew mi nit ñëpp bëgg ko. Mhm. Tiwaawan Fall fii lu mu am ko tey sëriñ Saliou Thioune moo tax ñu xamante Seydina Thioune ndax tey yàlla ku ne xam na ne Serigne Saliou Thioune samay wóllëre lañ. xamuñu nu ñu may def. Mhm. ñu jël ma ne ma jébbal nañ la. Basirou Ka del jokkoog moom del déggoog moom def ko sa lépp man tamit may doxee noonu di woyee noonu ba tax na mu kóllëre googu tax lépp lu mu bëgg rek dama koy woo ne ko lii laa bëgg du mat minute mu rek la ko ma jékki-jékki keroog gis muy def ay teraanga feneen di ko jox ñeneen ñoo xam ne wàññiwu ko dara ay kilifa nag mm-hmm. ñenn ñi ñu ngi tabax parce mm-hmm. alxuraanu karim mënoon naatoo toog fii waaye ku nekk yëfi boppam ñenn ñaa ngi fii di tabax seeni kër fii ma di may fekkee loolu mu leen koy jox ñu xëy di tabax tey ma ne ko kat man am naa koo xam ni lu ñuy déggante lu bari sax lu ñuy wax lu bari waaye damaa bëgg nga mayal ma ko terrain. non. non bésu alaaji mbay sax bëgguma ko woon wax fii. waaw basu alaaji mbay bàyyil ma wax ci wulli lan a wax ci basu alaaji wulli dafa ñëw waxal boppam mu ngi nii hmm. wulli moo ñëw woo ma indi ma hmm. ne ma man dama dañuy dem si maanaam dama ne ko rek nañ dem si Basirou Ka hmm. mu ne ma damay jël ay caméra ma ne ko bul fi indi caméra kaay ñu dem moom dina la may bëggul soxlool te tamit àdduna dafa toll foo xam ne booy def lu baax foog ñu fësal ko. Mm-hmm. teraanga dañ koy weer. waaw parce que nit ñi léegi dañu gis nit muy am teraangaam. Mm-hmm. di ko def ci suuf. Mm-hmm. ñu naan kii defalul kenn. parce que mi ngi def ci suuf te bu njëkk sutura lañ xamoon. waaye léegi réew mi mooy doxee ni kuy joxe rek dañoo war a fësal loolu. ndax ku la defal lu baax tamit da koy wax. moom nag mu gore trop baax. moo tax mu ñëw tey indi caméra yi nii pour ma wax ci moom mu wax ci Basiru ko wax ci. terrain man indi naa ko te Basirou Ka dina ko jox fii léegi seen kanam. Mm-hmm. terrain jox ko ay kayitam bu indee carte d'identité bi indi nga sa carte d'identité bi mm-hmm. mu jox ko ko jox ko acte de vente am mu dem. Mm-hmm. Alaaji Mbaye jox nañ ko terrain wala jox nañ jox nañ ko yaa ko li war a ci lamb bi ci lamb ji lay am mais alaaji mbay dafa am famille dafa nekk nit ku baax tamit lambu alaaji may tey amaana teraangaam yépp ci àdduna. yàlla daf ko indi ci man muy jaar ci man man li may am ci àdduna ci lu bari ci moom la ko yàlla jaarale kon kóllëre googu dafa jar di mata suuraale. Balla yi bari na lu mu am teraanga yu mu am ci Modou Lo la jaar. Mm-hmm. Modou Lo bari na teraanga yu mu am ci Balla la jaar loolu dañ cee war a bàyyi xel tuuti El Hadj Mbaye adversaire laa sama xarit la nag maanaam tey bokk nañu bëre daan na ma bu ñu dajee woon di bëre waat dañuy dóorante mm-hmm. waaye après hors làmb dafa am famille dafa war a am fu mu dëkk. El mm-hmm. Hadj Mbaye yay bagaasam billaay bëgguma ci woon wax dañu daje technopole. lañu daje mu ànd ak benn xaritam. ñu naan gauche droite maa koy nuyu bu baax mu yéeg ci kaw moto bi romb ma ne ma Ketchup may nañ ma cin millions léegi nag loo ci xalaat ma ne ko man damaa bëgg cinq million yooyu dinaa am ku ma la booleel léegi yaa ngi dégg parce que moom sax xam na ko moom xam na Basirou ko moom moo ne ma boole maag ci kanamu gauche droite boole maag sa waa jooju Basirou ko ah, parce que am na ambition hmm. ma jël xaalis bi tuur mu si terrain bu ma mayee terrain ma ne ko taxawal lii laa bëgg ci yow lii nii nga nga wax nii taxawal ma jël sama téléphone woo Basiru dina leen ko wax léegi ne ko Bas damaa bëgg nga may Alaaji Mbay waxtaan ak moom ba pare. Mm. ne ko ngénte la dinañ ñëw parce que dafa war a ngénte la 21 fii ci waawoon pël mm. dinañ ñëw ñëpp mais dama lay indil surprise mu na ma kan ma ne ko Alaaji Mbay laa lay indil mu ne ma Alaaji Mbay ban mën na ko bi ngay bëreel mu ne ma kon da ngay jokkoo ak Alaaji Mbay yow da ngay bëri moom di mën a ko wax dañuy bëri. mais leneen laa lay wax dinañ ñëw te damaa bëgg nga mayal ma ko terrain ndax dañ koo may 5 millions 5 millions bi siiw te loolu sama fierté la alaaji may lu ko nit defal rek man la ko defal te damaa bëgg loolu nag jëm kanam ni muy jëmee kanam mooy nga mayal ma ko terrain mu jox ñu rendez-vous àjjuma àjjuma boobu alaaji may ñëw mu jox ko terrain bi vidéo yaa ngi fi jël na koy vidéo xam naa après di nga ko jël dugal ko Alaaji mbay nag kii may na ko terrain. Alaaji Mbaye bi muy ñëw fii di woo na wax na loolu amul solo Alaaji Mbaye comme que ñëw na mu jox ko terrain bi rek na ko jox terrain. yow mi ko booleeg na la ko wala. moom wax. Ah. kii day ngir Serigne Touba rek tax man damay def ngir Serigne Touba rek tax. Hmm. wulli mii tamit buy def xëj na looloo tax. Hmm. kon tey Alaaji Mbaye li ma ëppal solo. Hmm. mooy Basirou Kami jox na ko terrain. Ah. te sant naa ci yàlla bu baax teenee boobu mu ko jox yàlla na ko tabax mu yëkkatiku ràppa jàmm ci barke Seydina Muhammad parce que ñooñu ku leen defal rek mën nga defal muy wulli mii muy keneen ak keneen lii day jeex Basiru Ka mii terrain mii day jeex fii kay at ci kanam a kanam dañ naan Basiru Ka moo fi doon maye ay teere ñim ko mayoon ñoo fi toog di ko ñaanal wala ay sëtu ñooñu mm-hmm. ñoo fiy toog di ko ñaanal ay sëtaatam ñu naan sama maam kat ma ko mayoon téene kooku ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ñaan yooyu dafa rëy tey teraanga yooyu du du deñ day des fii kon dañuy sant bu baax man Basiru Kalaay sant moom mi nga xam ne mi ngi may sagal ci loolu mënoon na ma ne déedéet te daf ne ma da ngay bëreeg alaaji mbay du ma ko mën a may terrain bàyyil ba nga bëreeg moom ba pare mi ngi nii dama koy jox moom mu wax